ciy xas jigéen ñi parce que wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ daw nañ ba sonn mais nag am na loo xamante nii góor di la ko teg dafa yow boole ci am na ñoo xam sa dañ boole leen jox matu joxuñu leen tus yaa ngi dégg loo am yaa ko defal sa bopp xamul na su jëkkër dara lu mu am def ci poosam du kafak yow du reeg yow loo def neexu ko loo sañse neexu ko lu jëntiw la bu tëddee ci laalam bi moo la njëkk a woon ginnaaw bis bu la soxlaa nag bëgg laa nag téye. <laughs> di la téye da ngay nelaw foo toog <laughs> da yaa ngi ci jàmm. foo demoon. <laughs> foo demoon. da fekk na man Mbodj ma yéeg maa nga ca kaw man léegi nag loolu mooy ànd yëg bi parce que nga wàccee boobu Pape Ndiaye Pape Ndiaye de tey xewu kiyam bi dafa ko Mbodj ba bëgg a wàcc Mbodj day sëñ Ablaye. mbéy ji ci biir loolu. ok xam nga ci biir